mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñëwaat euh, seet si Serigne Cissé mu Serigne Babacar radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni moom mooy wasilaam moom mooy soppeem euh, di ko ñaanal jàmm gudd fan wér yaram moom dootul gan ci Sénégal ndaxte euh, ci Sénégal la bokk Serigne Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàcc ah ñu ngi lay fay bu baax alaaji Pa Maguette di la ñaanal yàlla tawfiq ak sutura yàlla yàlla defal la ko ci daal la ñu Serigne Babacar di mboolem waa Sénégal ñëm ñëpp bisimilah sang bi. jërëjëf Pape alaaji moom bi may wax moom moom yàlla yàlla na doon. yàlla na am ndaxte alaaji bi bëgg naa ko lool dana am dana am ndax làmmañu yàlla def na ne dana dee liggéey turu yàlla te. Euh, gëm naa ne euh, li alquran doon wax naan wa maa yantaqu anil hawa in huwa ila wahyu Euh, waaw ku topp bakkanam rek du tax mu wax lii nuy wax nag xañ na euh, lu borom bi di dogal la mm. moo tax mu jaare ci alaaji Pa Maguette mm. te defe naa ne bi ma la xamee ba léegi alaaji Pa Maguette la kon fa tabaarakallaahu bi ma ñëwee kër dama beneen chaîne laa fekk mais maa ko tukkal def ko màkk <laughs> dëgg la fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla def ko yàlla na yàlla def ko ci daraje Serigne Babacar Sy mhm. alors Serigne euh, Cissé mu Serigne kër ñu ngi jëm ci benn combat combat boo xam ni daaw ba ren ñu ngi koy coow mm. combat boo xam ni comme guerre mondiale combat boo xam ni fitna sur fitna ñaari mbër yi mënuñu jàkkaarloo ba tey. Modou Lo Ama bi ci mujj stade arène nationale fitna gi jóg na te nee nañu sax fitna googu moo gënoon oyof bi naroon a am lan nga may wax ci combat boobu combat boobu jar na koom jar ko. Euh, dama toog fii sama kër ma ne combat bi de li ma Modou bu ma amee lenn lu ma koy conseil ak lu ma koy dolli bu yeggee ca stade ba. lu mu mën a baxel boppam na ko baxel boppam ci lan ci gàllaay yoo xam ne mën na ñëw ci jëmmam ci programme boobu ñu nekk ca yàlla muy dara tawul nag def na leen leen waxoon nu ba ko xel ba ñoom jotaat nañu retourné xam ne la ma leen waxoon lu wér la ñu ñu feddali loola waaye dafa am loo xam ne pamaget dara jaru ko ci àdduna te combat bii liñ ci gis man li may ñaan jamono bii ma toll fi ma toog yàlla bu combat bi am laay ñaan sax man barke Serigne Babacar Sy yàlla bu combat bi am sax laay ñaan man ndax li ma ci gis ci ay loraanga yi ci war a am victoire jaru ko xaalis jaru ko dara jaru ko moo tax damay toog xaaju guddi mbir mi am lu ci jeneer ñu koy gis may ñaan ci yàlla ne combat bi yàlla bu am ndax combat bi fu mu mën a xewee ci àdduna ak foog ne fuñ ko fa defee tension du fa am kerek la tension di gën a mën a am billaahi gis naa ba gis ci bakkan yu wadd hmm? billaahi la si laa ilaha illaa huwa te combat man ku ne xam na ma ci wàllu sport ci ab làmb man lay defee rek la ma nit ñi xamee waaye li ma gis ci combat bi moo dalul sama xel. mais mais lan loolu fitna googu xanaa du bëri rek xanaa du ñaari mbër rek tamit. waa xam nga bu doon ne ñaari mbëri la rek du am problème ñi ci côté te li tax combat ba di metti bu dee amaa mën na béy ko këram ba ñëw ci làmb ji dara du ko dal. muudu kasaalika xam nga ñan laa yërëm ñi leen ñiy escorté mbër yi lu ko jar combat bi daal buñ ci mënee soppi doxalin nañ ko soppi. mais que wàllu mystique bi taxul combat bi gën a am fitna. mystique bokk na ci leneen it bokk na ci luñ mëntu tudd. waaw junj ma leneen lan danga may junj rek waaye bu ko bu duut baaraam junjal ma ko rek xam nga alaaj Pa Maguette. Hmm. bii daal. Hmm. li ma la ci mënal tegal baaraam. Hmm. li ma ci gis ci loo xam ne dalul xel. ci ñoo xam ne duwuñ ci dara. ñoo xam ne duwuñ ci dara. duwuñ ci dara. ji dëgguñu ko bokkuñu làmb ji bëreewuñu. dugguñu bëreewuñu. waaye li ci war a xew. day xew ba ëllëg. ñu naan lii warutoon a am te mag ñi dañuy wax ne xoddeeku ca balaa ngaa lakkale làmb ji buñ ci mënee soppi doxali nañ ko soppi man de li ma ci gis man Serigne Cissé mu baaba Babacar Sy dalu soba xel te sama mbir mosuma nax mosuma nax alaaj pa màgget te dara jaru ko ci ñaari doomu aadama yeneen war cee xew après dara jaru ko mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. te day day day yàq lu baree bari ci senegal parce que làmb ji nee nañu làmb coow la làmb ji day neex bu ñu ko tëggee stade dina fees. Euh, xam nga stade bu fees. yooyu du dara. làmb ah, ko soxla làmb bu soxlaa soxlawul ay bakkan yuy dem. soxlawul violence. làmb ñëw kafre Pa Maguette ma lu ma la wax ba ci xel. booy Niang dafa war a bëreeg Tapha Tine ñii ñëw ci sama kër gi ma ne leen làmb ji de mën naa leen di jox tegtal yoo xam ne bu ngeen ko defee surveillance deret du fa génn ba ci mbër yi kii bu defee lii kii def lii promoteur bi def lii benn problème du am ca làmb ja jàmm fay am làmb ji nit ñi dem nañ ci jàmm dikk ci jàmm waaye làmb ji li ma ci gisit man dafa dalul sama xel te bu dee borom bi dalaa dénk ngay gis te doo wax ak jaam ñi ëllëgee borom bi dina la laaj ndax yow lii la borom bi dogal ci sa jëmmu ne dal dimbale nit ñi ci li nga xam ne yaa ngi koy gis yaa ngi koy xam te jaam ñi xamuñu ko boo leen mënee lancé appel lancé leen bu nu defee fa laam di wa sukkur bu nu deful yow wàcc nga sama mbir noonu la wax nag bu dee da ngay wax wax joo xam ne danga nga cey xaar ku la appel na la xaalis wala na la nangam doo wax dëgg sëriñ si nag mu sëriñ Babacar Si réew mii di Sénégal yàlla daa dogal ne bu réew mi jaxasoo bokk naa ci ñee dalal xel yi waaye yàlla mi dara tawut it lu as gor di di yor war koo lijjanti ak njabootam yàlla jox na ma ko kon lañ cay mën a wax daal mooy ne làmb ji buñ ko mënee soppi nañ ko soppi loolu rek laa am ci lu ma ciy wax ndax la ma ci gis gis naa ko te daal dalul xel waaw. wax jooju leer na leer na ci ñaari mbër yi te it dégg-dégg dafa war a am ci ki nga xam ne moom mooy organisateur bi. Euh, Luc Nicolaï ñu koy nuyu au passage mu bàyyi xel ci loolu bu baax baax moom itam ñu koy souhaiter bonne chance euh, ñu xoolaat làmb jooju rek ndaxte la mu nar a jur jaru ko man personnellement man mi nga xam ne ma nekk ci làmb man it bugguma dara xew ci parce que violence bi man neexuma euh, Serigne Cissé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax dig daje rek xam na ba làmb ji di waaj a jege rek wala après bombardier Mm-hmm. Balla Gaye ñëw seet si la. incha allah bu soobee yàlla alaaji Paa Maguette. benn dëppee rek. <laughs> incha allah bu soobee yàlla bi nga am loo incha allah bu soobee yàlla ñu ñu ci jour combat ci suba si amal loo ma di. waaw jokkoo ca incha allah ni sëñ si ne woon na ma nangam. amul benn muskila bu soobee yàlla lu ci man a am dañ la ko wax. yal na yàlla may gudd fan wér gu yaram eh, xel mi gën a sell liggéey bi gën a màcc yàlla defal la ay xéwal jàmm ak sa njaboot gi yëpp. wàcce ko ci réewu Sénégal bi yëpp Ablaye ñu ngi koy jaajëfal si caméra bi Diouf Serigne Saliou